Euh, gàtt sa damaa gis journaliste yi TFM yi ñoom nañu ragal yàlla ah xam nga ñu war ragal yàlla. ñoom waaw ñoom waa TFM. rawatina journaliste TFM ñu toog info du matin. Hmm. yaa ngi dégg. dama am bis ma gis Malick Thiandoum. Hmm. damay jaay ci tur parce que moo ko def. ñëwaat ci benn question boo xam ne fi mu toll nii lëmbe na jamono rek ñi ngi wax ñi ngi naan saaga la ñi euh, jàppee nañ ko wax ju ñàkk teggin mmh. euh, moowu gatsa gatsa laa bëgg nga ñëwal ma ci leeral ma waaw moowu gatsa gatsa mooy lan tamit suñ fàl loolu dinaa ci sawar ndax damaa gis ay nit yu koy jël di sensé déggin wi te ñu xam ne gatsa dégginu gatsa gatsa déggin wi gatsa ci boppam gatsa baatu gatsa ndax gatsa Mm-hmm. ab moo la nga yokk ci beneen gatsa mooy ñaar muy gatsa gatsa. waaw gatsa ci bopp wu ñu taxaw ci gatsa. Mm-hmm. baatu olof la. gatsa gatsa mooy ñaw ñaw. Mm-hmm. ñoom ñaari moo yooyu kenn mu leen teqale. yaa am suwaana bu neex ñaw ñaw. bu neex nga ne gatsa gatsa. Euh, gatsa damaa gis euh, journaliste yi TFM mi ñoom nañu ragal yàlla ah xam nga ñu war ragal yàlla. ñoom waa TFM waaw ñoom waa TFM. rawatina journaliste TFM ñuy toog info du matin. yaa ngi dégg. dama am bis ma gis Malick Thiandoum. Hmm. damay jaay ci tur parce que moo ko def. Hmm. Euh, muy wax daal ne mooy yi nga xam ne ñu koy génnee ba am na leader bu taxaw wax ne euh, mooy sax ma ci jaar parce que dafa ñaaw nangam naa waaw ma ne ñii est-ce que ay borom xel lañu. Hmm. gat sa nga ndax dafa ñaaw ndax saaga la gat sa du benn saaga mu olof la comme ni ngay waxee may ma ndox toogal ne dijul. yaa ngi dégg yaa ngi dégg. moog ñaw ñawu ñoo yem. gat sa olof dina ko jëfandikoo ci bu xale di fo. waaw yaa dégg. Mm-hmm. di yéeg ci kaw aka a wàcc. Mm-hmm. wala muy bërëngu foo xam ne am na ay jam-jam nga ne ko bàyyi li ngay def. ndax boo daanoo fii mën ngaa gaañ sa mm-hmm. mu dëgër bopp nga dem ñëw fekk ko muy yëkkati ko rek far daanu këpp nga ne ko gat sa waxoon naa la ko. effectivement yaa ngi dégg mel nga ne ko ñëw waxoon naa la ko. gat sa léegi nag président Ousmane Sonko comme ñoom dañoo woo woon rek ñoom waa benn Bokk Yaakaar ñoom waa APR. di yabar seen ay force de l'ordre bu ñu jàkkaarloo ak xale ba ne mu benn lacrymogène am ko toog ca bureau daa ne gat sa du ngeen du ngeen du ngeen bàyyi léegi nag mu ne mbir mi dootu nekk benn gat sa kase yow waa APR bi boo toogatee sa bureau ba gis ñu dóor booy lacrymogène nga ne gat sa jàppal ne yow xaaral sa bos mi ngi ñëw sa bos waaw booy dinañ dinañ dinañ tourné waat ñëw def la loo xam ne dana am ko toog lu fële na gat sa waa APR da ngeen foogoon ne yéen a moom réew mi mm-hmm. boo boole ñaari gat sa yooyu yow nee nga gat sa yow waa APR am keneen ku gis lañ la def tax mu ne gatsa nga boole ñaari muy gatsa gatsa léegi du yow du yow APRS bi yow kasi yaay wax gatsa waaye boo ah. waxee gatsa it am keneen ku la gatsa mu nekk ñaari gatsa wax nga ko ñu delloo ko ñu delloo la ko mu jeex muy gatsa hmm. kon baat boobu baatu olof mi mel nga ne ñaw ñaw du hmm. dara waaw gatsa gatsa mooy bis boo defee nit lu war a ñu ne ko gatsa hmm. yow tamit dañ dees na def lu war a ñun la gatsa jeex na moowu olof la bis ne ka bu ma diggatee kenn naan gat sa aw saaga la gat sa benn saaga lu leer moowu olof la nañu ragal yàlla ci bàyyi euh, maître El bi ñu bi bi nga xam ne sanctionné nañ ko ci ordre des avocats waaw loolu moom c'est normal parce que kon moom laa mee dafa tax waaw day mbëlëf mbëlëf rek di wax loo xam ne dara amu ci di sos di créer ay wax di saagawaatee hmm. moomut réew mi président Ousmane Sonko kilifaam la président Ousmane Sonko sëriñam la hmm. Ousmane El Hadj Diouf bëgg nga xam ne Ousmane Sonko sëriñ la sëriñam bu baax Ah, président Ousmane Sonko baal ma wax la waaw ah. moo ko moo ko moo ko dàq pratique diine. Ah. président Ousmane Sonko moo dàq jàng El Hadj Diouf alquran El Hadj Diouf mm. mënu jàng alquran. Mm. yaa ngi dégg. Mm. président Ousmane Sonko maam moo gën ay maami El Hadj Diouf moo gën bàyyi El Hadj Diouf. déedéet waay moo ko gën foofu sax. moo gën nekk julit. képp ku képp dañuy xayrukum man ah dana dana nu ko alquran waxee waaye. inna akramakum inda allahi atqaakum. waaw ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla. waaw. te aw ma sikk sàkkane président Mansour Sonko moo gën a ragal yàlla El Hadj Diouf kon la moo tax moo gën ku la gën a ku la gën a ragal yàlla moo gën. est-ce que moo gën a ragal ah, hmm. la gën a gi ñuy wax ne dañuy wax ne ah, darajay tawxiid. waaw darajay ragal yàlla. Hmm. mi ngi nekk ci ni ngay pratiquer diine. gis nga lépp lu gën a pratiquer diine rek. Hmm. niveau am ci diggante ma suñu borom ci ragal ko day gën di yéeg. te kenn wératiwul ne Ousmane Sonko président Mansour Sonko moo dàq jaamu yàlla. moo daq pratiquer diine. moo daq jàng alquran nga xamante ne si benn xaraf woo jàng am fukki yiw ka El Hadj Diouf kon kay bu ma ko ci loolu mën naa ne moo ko gën moo ko moo ko gën fuuf ñuy wax naan nañ ko jéggal ba procès Adji Sarr bi déer ëpp naa def El bu kenn jéggal kooku yooyuwun jéggal kooku lu mu def dis ko war a fay wan fay gi waaw du du nit ku baax déedéet du nit ku baax El Hadj ko war a yar dama gëm ne comme am nañu ko féete kaw ba mën ko yar nañ ko yar kon kon kon kon ordoo ko moo ko moo bâtonnier yi yar leen ko ndax moom benn dafa ëppal ba pare dafa ñàkk kersa ba pare daf day day day jàngal suñu xale yi ñàkk kersa dafa soxor buy wax ci président Mansour nga gis ne kii dafa mbañal dëgg dëgg lay wane ci diggante ma ki muy waxal moo tax moom euh, yenn saa yi di ñoo xam ne ay ay tutànk yoo xam ne ko mel ne ndeysaan jàmbar jooju Bassirou Diomaye Faye mhm. waaw moom ak a baax ci moom da koy fàttali démb bu baax da koy fàttali démb waaw da koy fàttali démb <laughs> waaw moo tax man ko moom lool jërëjëf lu euh, ñu ko defee yeewee na ko dafa mm. soxor. jërëjëf euh, ñu lay sant di la gërëm. joxe dig daja beneen yoon jërëjëf jërëjëf Sëñ Fall